wàllum prostitution présumée la ñu tegee loxo benn libérienne boo xamante ne fanweeri at ak juróom-ñeent la am maanaam benn soxna boo xamante ne mu ngi bàyyi ko fële ca réewum Libéria am fanweeri at ak juróom-ñeent police bu Grand Yoff moo ko teg loxo Smith a nekk nag benn soxna boo xamante ne nag dafay génn guddi mu ngi fekk baax fële ca réewum Libéria am fanweeri at ak juróom teg nañu ko loxo dend rek fa nga xamante ne moom mooy ab baar élément yu brigade recherche bu police bu Grand Yoff ñu amal li ni mel ci ab opération sécurisation bu ñu doon amal maanaam andi kaaraange ca boobee diwaan bu ñu sukkandikoo ci suñu nattango yu laas li ñu xam ne mooy boobee soxna ba ñu ko tegee di ko laaj li mu xam ne mooy foofee mu taxawoon ca mbedd ma ab gelam la fa doon xaar loole nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy police yi gëmuñu ko ci saa si ñu ko jël daal di koy defeere ca parquet ba di ko toppee racolage